laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wazdiha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة وزواء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة وضحاء ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء السلام عليكم Euh, ci njëlbeen maa maa ngi tudd Moulay Ahmed ab Zélil xaw na dëkk Matamulaane nekk attaché bu cabinet premier ministre bu Mauritanie euh, maa ngi leen di ndokkeel d' abord ci guddi gi ci laylatul mawlid euh, gan bi ñëw chaque année ci ñun ñu koy assister ci jàmm ak salaam moom ak laylatul qadri waaye Cheikh nee na man ataali mawlid ataali ramadana wa man ataa lil mawlidi ataana ku ñëw leen laylatul qadri sa bopp nga ñëwal waaye ku ñëw guddug mawlid muy gàmmu ñun nga ñëwal kon ñun léegi ci cheikh la ñu ñëw euh, giléem yi nag addiya la du wax contribution de waaye addiya la parce que suñu sëriñ lañ ko jox suñu maam yi daan nañ ko def parce que Mouhamed Misri moo njëkk a jëf li nga xam ni moom la ñuy wax at yi ak nag fii ci Médine ci wàllu Mauritanie waaw euh, bi ñu demee nag léegi ça fait huit ans xaaj gis ne sénégalais yi commencé nañu jëfandikoo euh, gileem yàpp gileem mu ni ñun bu ñuy terale li gën ci li ñuy am la ñuy terale te ñun waa Mauritanie fonk nañu trop gileem moo tax mu ni nañ koy def muy gileem loolu moo tax gileem yi ñëw fii euh, waaru cheikh nag toolu cheikh tool bu rëy la kenn ku ne rek sa waar ak fiñ la féetale yoo foofu nga nekk kon ñoo ngi sant euh, suñu xalifa général cheikh Mouhamed El Mahi ci organisation bi euh, ñu koy ñaanal yàlla wér mucc ak gudd fan mu nekk ci suñu kaman kanam ba ci kanam ci jàmm ak salaam ñun nag bégg nañu trop ci perte bi ñu am fii que ça soit au niveau administratif maanaam ci nguur gi que ça soit au niveau local fii ci madina parce que vraiment euh, on sent pas qu'on est ailleurs ñun ñoo ngi fii ci suñu waajur suñu cheikh waaye suñu waajur yit moo ñu tette moo ñuy xelal lépp lu ñu loo xam ne soxna luñ ko defal nañu ko walla nguur gi nag amoon nañu jafe tuuti ci ci giléem yi waaye alhamdulilah. nguur gi def na ci wàllam ba kenn de doy ñëwu ko ñu ñaanal yàlla c'est l'occasion it ñu ñaanal yàlla euh, euh, président Diomaye fay ci faveur boobu bi ñu jox mooy exonération gileem yi parce que boo ko deful woon gileem yi du ñu fa mën a àgg kon loolu des ko ci sant di ko ci gërëm ñuy ñaan yàlla rek mooy yokk di jëm kanam parce que taalibe amul lu dul sëriñam waaw foofu la bës ndiko ko dimbali foofu dimbali nga ko te ñun vraiment. Eh, assistance bi ñu am ci wàllu ci wàllu nguur gi ñoo koy gërëm di ñaan yàlla ñi fekkee woon daaw te nekkatuñ fi yàlla la leen yërëm yàlla yërëm ñi fi nekk it yàlla nañu am gudd fan bay man di gàmmu gàmmuwaat ci jàmm ak salaam. lan li may dénk ñi ñëw eh, mooy li may dénk taalibe yëpp jébbalu jébbalu yeesal eh, topp ndigal sëriñ bi. parce que yàlla may sëriñ bu mel ne Mahi muy sëriñ boo xam ni ku weef la ci wàllu relation ku am xam-xam la it ku laabiir ah, koo xam ni am ne expérience la weef na jege ne ñëpp lii mayu yàlla la yërmande sax laay wax ndax Cheikh Mahi yërmande la ku ko xam rek xam ne yërmande nga ndigal yi mu jox buñ ko toppee incha allah dinañ def suñu suñu gàmmu ci jàmm ak salaam kenn du ci am benn xuus xuus kenn du ci am benn rëq-rëq kenn du am benn tartar moo tax ñuy ñaan daal li mu digal rek nañ ko topp je crois que au niveau de l'organisation c'est ça que je veux dire yi à peu une cinquantaine la parce que am na yuy réer ci yoon bi parce que giléem mbiram dafa dafa xaw a fort tuuti ña koy sàmm léegi léegi mu am yuy réer am na yu ci réer waaye prévoir na ni cinquante la ñu waroon a indi yaakaar naa ni cinquante cinq moo fi war a agsi waaw man maa ngi tudd Moulay Ahmed El Abdi Jalil wal xuuna attaché cabinet premier ministre dëkk fa maatamu lana jazakumullahu xayran di taalibe Baye loolu loolu laay bàkkoo bëgg Baye lañ may wax <laughs> jazakumullahu xayran ah, merci beaucoup merci man maa ngi tudd Abdourahmane Bannaani Abdourahmane Bannaani maa ngi dëkk maatamu lana waaw taalibe Haaj Mishri léegi maa ngi sun yàlla bu baax a baax maa ngi sawar bu baax a baax ndax maa nag tey bés bi bu baax bii bésu jumaa bi ci Medina Baye te maa ngi indi gileem yi gileem yi nga xam ni ñu waaw gileem yi nga xam ni yàgg nañu ko indi fii maa ngi maa ngi bu baax alhamdulilah marhaban marhaba marhaba marhaba مرحبا واهلا واو ما نقص ان شاء الله ابو باخ الحمد لله سرين بي سرين بي نيونا خليفه نيونا ما نقي الحمد لله نقص يلا ابو باخ نوك من قصت قلامي قلامي يقنا يكبنك نكون دفي يقنا bu njëkk bi Misri moo ko doon def moo doon indi fii nag léegi xaaj Misri mooy indi giléey mi kooku moom dox bu baax la ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah amiin amiin amiin amiin dua amiin amiin alhamdulilah rabbil aalamiin alhamdulilah rabbil aalamiin waaw macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax maa ngi go sant waa gouvernement Mauritanie ak waa gouvernement Sénégal yi gaa du mu ñoom gaa benn benn benn benn réew la du ñaar waaye nag seen gouvernement yi yëpp bàyyi nañu affaire bi mu jàll ci jàmm ak salaam bàyyi nañu gi leen dara macha allah yoon bi dafa neex macha allah ñu ngi leen sant yàlla bu baax ñu ngi leen ñaan yàlla fii ci barke ak jëm ak salaam ci. Afrique surtout suñu réew bi sani ak Sénégal hmm? waaw ñoo ngi yàlla bu baax ñoo ngi yërëm gouvernement yi Mauritanie ak Sénégal ndax ba ñu jël gileem am na léegi fukki 15 jours alhamdulilah dara lu naqari gisuñu ko fu ñu ja yombi macha allah yombi noonu dañu ko jël fële ci gannaaw maa tamulaana tuuti ñu jël ñetti niit ñu mu nekk ci ñoom mu dàq ko ba ruusu ba ruusu Mursaan ñu jël foofu ñaari oto ñu def ko ci ñu jàll waaye nag ba ñu jàll tabaarkalla waa ñuy nekk ci nekk waa waa douane ak yooyu ñëpp macha allah li ñu defar yëpp baax na dara dara dara dara naqarul ci ñun surtout léegi ñoo ngi sant yàlla bu baax ñu ngi gëm bu baax. moom cinquante cinquante gileem juróom fukki gileem kii misri moo doon indi nag bu njëkk ëpp na léegi ñaar fukk at léegi nag ba xaaj bi ñëw xaaj misri léegi moo moo bu def ko gileem ndax gileem yooyu xam nga loo yonent bi wa wax na ci gileem waaw jërëjëf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax man maa ngi tudd Abdourahmane Bannaani timaat Tamoulana waaw Euh, maa li ñu wax alhamdulilah maa ngi ñëw fii par yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ziyaara Cheikh Baye kooku moo ñu fi indi ñu tudd yàlla fii ñu jàng Quran ñu seet suñu mbokk bi nag fii dégg nga noonu ñëpp benn lañu laylatul mawlidi lasi kana lidi ne sororon bi yawmihi wazdiha halli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء